asalaamaaleykum diaspora man maa ngi tudd Cheikh Gueye maire Dieuppeul Derklé taxawal fii coalition Khalifa président Khalifa Ababacar Sall moom ci boppam moo fi waroon teew mais xam ngeen ni bi ñu commencé processus ba léegi ñu dëgmal campagne électoral bi dañu defoon tirage au sort pour xool candidat yi kenn ñu jàll ak ban waxtu la ñuy am au niveau de la presse ñàkkul ni jamono yi mu ngi ci yoon wi di def enregistrement mën nañu nañ ko fi teewal àndi fii ak le maire Abdou Aziz di indi kàddu xalifa Sall kàddu xalifa président pour wax ni li ñu dégg ci président de la république mënuñu ko nangu mënuñu ci ànd ndax du kàddu yooyu moo war a jib ci jamono bi ñu toll. réew moo xam ne dafa dëgmal élection ñu jaar fa ñu jaar yëpp ba ni à quelques heures la campagne bi di ubbi nga ñëw indi ay mbir bëgg ci langaamu naan da ngay reporter élection yi loolu xel mënu ko nangu Sénégal dañ ko daan bàkk naan Sénégal réewu jàmm Sénégal dañ ko daan bàkk di wax chantre de démocratie en Afrique Sénégal dañ ko daan naan contrairement à d'autres pays yi xam am coup d'état yéen amu leen coup d'état mais tey jii boo nekkee ci réew mi mbaa ngi génn bitim réew dañu lay dab di la woo naan la lu xew seen réew lu leen dal naam amu leen coup d'état militaire waaye tey lii xew mën nañ ko tuddee coup d'état institutionnel lii mooy indi njàqare ci réew lii mooy indi kaw ci réew moo tax ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a jëf nañu ci jëf loolu tax xalifa président ni mi ngi woo les forces vives de ce pays mi ngi woo les patriotes de ce pays mi ngi woo les démocrates de ce pays pour que ñu ànd doon benn boule pour faire face à ce que Macky Sall veut faire c'est-à-dire fortitude lii xel mënu koo nangu nit mënu koo nangu maa ngi doon waxtaan ak léegi benn góor mu may laaj lii lu mu doon ma ni ko góor gi boo ko doon seet ci misaal dafa mel ni ay jullit yu jàpp ba set waxtu julli jot ñu war a ñëw julli imaam bi ñëw ni tey julli amul fomm nañu julli loolu ndax jullit mën na ko nangu déedéet ma ni faw ñu julli bu ñu julliwul ci jàkka ji daañu julli ci jàkk jële waxtu julli dafa jot te loolu mooy tuddee waxtu julli moom mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu dëgbal dara mënta tee ñu dugg ci biir campagne bi wan Macky Sall ni li ngay wax waxu kasaw kasaw la waxu ko daaju saret la ndax ni ñu ko waxee amul lenn lu mën a tax ñu reporter élection yi nit ñaa ngi dem ak dikk assemblée nationale mi ngi def liggéeyam conseil constitutionnel mi ngi def liggéeyam liggéeykat yi ñu ngi dem seen liggéey liggéeykaay jàmm moo am ci réew mi lan moo sabab ñu naan dañuy reporter élection yi bëgg toogaat ci nguur gi bëgg yokk mandat am loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba looloo tax ñuy woo bépp candidat ci élection présidentielle mais au-delà des candidats le peuple sénégalais debout comme un seul homme pour faire face à cette forfaiture de Macky Sall nous disons non au report de l'élection présidentielle nous disons oui pour le respect de la Constitution